mbokk internet yi dal nag ak jàmm. ba tey ñu wëyal ci suñu top 10 actrices yi nga xamante ni ñoo gën a ràññeeku ci atum 2020 bi fii ci Sénégal ci wàllum série télévisée yi lee ren nag mu am particularité ndax dañoo gis ne nag sunu actrices yi dañoo gën a osé ñeme écran bi lool wante nag saa li nga xamante ni nag daawuñu ko gis lool ci jigéen ñi di ko def fii ci sunuy actrice nag la ñu daal di nemmeeku ci atum 2020 bi ak ay révélation ay tête yu bees ak ñoo xamante ni itam dañoo ñëw wanewu daal di ñëw wane seen bopp ba mu jeex tàkk ci suñu série yile loolee nag bu ñu ko waxee dañuy daal di nag doore bile top ten ak ki nga xamante ni moom mooy Soumboulou Bathily mi nga xam ne moo nekk ci dixième position ba Soumboulou Bathily nag kenn dootu ko présenté fii ci écran bi rawatina ci théâtre sénégalais ak troupe bi di soleil levant nga xamante ni nag fa lañ ko daal di nag njëkk nag gisee mu daal di fël moom Soumboulou Bathily nag ràññeeku woon lool ci at yi nu génn sax ak série bi di Wily Wily mi nga xamante ni daanaka dafa mel ni moo ko daal di lancé ci série boobu nag mu nekkoon fa actrice principale moom mi mënoon lool lu muy def Soumboulou Bathily daanaka série bi yow daf ko daal di jooy ba mu jeexal tàkk ba ñëpp ku ci nekk naan sumb lu bàcc Bathily nag la muy mën daf ko daal di def nag ci li nga xamante ni noonu la dal di waree moom sumb lu Soumboulou li ginnaaw moom neuvième position ba Ndeye njaay Ndeye Ndiaye mi nga xamante ni nag ca troupe jànqeen la daal di nag bokk ndokk ci série bi nga xam xamante ni série bi nga xamante ni sax bokk na ci série yi nga xamante ni gën na nekk nag série réalité maanaam di wane li nga xamante ni moom la ñuy daal di dund ci sunu société sénégalaise rawatina nag ci jigéen yeeg góor ba ci biir néegu sëy yi ak biir kër yi li fa daal di xew loolu lañ daal di retracé ci série boobu nga xamante ni mooy mbetteel moom Ndeye Ndiaye nag nit ci ràññee ndax xam na mu nag safee làmmiñ mën a tontu nag bu dagaj dagajee ba nga loola tax nit ci gën ko daal di naka jox bopp ci jamono yi ñu toll huitième position ba dañuy daal di nag jox ko ki nga xamante ni mooy Adja Adja mi nga xamante ni nag ñu ngi ko gën a xam ci Keisha Hadija Dem nekk turam dëgg Adja ñu ràññee ko ci série Adja bu Patisen Sène ak Lord Ninkinanka ginnaaw sa am na série yoo xam ne mu ngi koy daal di def wante ci production yu Marodi TV yi nag nekk série Adja ak ninki Ninkinanka lañ ko gën a ràññee moom Adja Adja mi nga xamante ni nag nit yi dañ koo bëggal seen bopp ndax la muy joué daf ci dugg ci biir rôle bi ba a tàkk moom mi di incarné nag femme soumise di incarné nag mère de famille boo xamante ni dafa dévoué ci ay doomam toppatoo xool seet seetantal wante nag yor sayam ci anam goo xam ne noonu la ware mën a toppatoo jëkkëram noppi ci qualité yëpp yi nga xamante ni la xool ci jigéen moom mii di Adja wala boo Kisha Khadija dem dañ koy gis ci moom moo tax moom bokk na nag ci ñi nga xamante itam ràññeeku nañ nañ lool ci atum 2020 bile ginnaaw bi septième position sunu top ten bi ba tey la ñuy wëyal Kumba Kumba ci série infidèle la bokk série infidèle bokk ci révélation yi moom Kumba itam bokk ci ñi nga xamante ni dañoo bees tàq si sunu écran yi fii ci diwaanu Sénégal moom Kumba itam ñu ràññee ko ci série bi ndax na mu nekkee koo xamante ni chaque fois nag bu série bi jàllee ca YouTube ba da di commentaire yi boo fa demee ñu koy taxé de koo xamante ni dafa daal di osé ak koo xam ne dafa vulgaire ndax bopp ba mu tent waaye naka corkoom gi nga xamante ni nag moom la ñuy daal di gis mu koy coloo yenn saay bokkut ak suñuy coutume ak suñuy aada ak i cosaan moo tax moom mi saay su ay xas ak i saaga nag daf koy sàppi ndax lu ci nekk rek dañ ko koy yàq ba mel ni am musiba ca sixième position ba ba tey ci suñu top thème bi ñuy daal di wëyal joor joor bi nga xamante ni nag ca série Wujju Peex Cooro bi nga xamante ni nag mooy daw sa Sen TV te mu nekk ab production xaar média xaar média nag daal di uh, dawal li nga xam ne moom mooy série wujju peccogo moom joo ràññeeku ci lool ndax nekk ku bon ki ki ñëpp sipp muy def lu ko saf ci série bi série boo xamante ni dafa ñëw di retracé lépp loo xamante ne nag moo ñeel sunu dundin ci biir kër yi rawatina ci diggante wujju peccorgo yi nga xam ne saay son la ñuy wax sax si olof ne wujju peccorgo daanaka mooy wujju wujju bi nga xamante ni sax moo waroon nekk ci ñaan ñoo xam dañoo bokk jëkkër amut moom def ay yëf bon daal xeetu bon goo xamante ni foo ko natt weesu na ko moo tax moom itam bokk na ci ñi nga xamante ni ràññeeku nañu lool nag eh, ci atum 2020 bi ak série bi di wujju peccox go cinquième position ba tey c'est une top ten bi Aïta Aïta mi nga xamante ni nag eh, ñi ngi ko gën a xam ci Virginie ci biir série Virginie bi nga xamante ni mooy daw ca TFM di ab production eh, bu Marodi TV wante nag lors de Ninki Nanka itam daan na ci ràññeeku lool moom Aïta nag nekk top model model photo nekk itam chanteuse euh, tiktokeuse boole loolu yëpp moom Aïta itam bokk na ci révélation yu atum euh, deux mille vingt bi ci série euh, sénégalaise lu ci mel ni Lord Ninki Nanka ak Virginie Virginie mi nga xamante ni sax moom mi actrice principale bala la itam ci yaroom naka teeyam wante mën rôlam itam même ba ca Lord Ninki Nanka bokk na ci li itam moom mi bokk ci révélation ci atum deux mille vingt bi marqué na esprit lool quatrième position bi keneen itam koo xam ne marqué na nit ci lool ci atum 2020 ah, bii di Diarriatou Sow Diarriatou Sow ci turam dëgg ñu gën ko xam ci Amy Leassi eh, ci série Karma ak Golden Golden mi nga xamante ni moo ko njëkk lancé moom Diarriatou Sow wala boog Amy Leassi nekk koo xamante ni itam ñu gis ko ci ay modèle photo et wante nag mu gën a ràññeeku ci eh, série bi eh, di Golden mu def ab fëllam ca Golden wante nag ci Karma la gis nag mu gën a wane boppam nag ak rôle principal bi nga xamante ni moom la daal di yor di ko doxal ba mu mat sëkk ñu gis beneen visage bu jaariyatu sow jaariyatu sow mën a manigance jaariyatu sow dealer jaariyatu sow nag nekk ci ni ko koo xamante ni itam rôlam daf ko incarné ba mu mat sëkk lu mooy loolu itam keneen troisième position ba di Mère Diagne Mère Diagne mi nga xamante ni nag ci série maîtresse d'un homme marié lañ ko gis naam sax nekkut ko xam ne dafa daal di bees tàq ci écran yi ci série sénégalaise yi ndax ma xamante ni nag moom mooy daaree Kocc moom la daal di bokkoon di ko def ba mu mat sëkk loolee mu gën a sax nekk xale ñu gën ko ràññee ci théâtre bi di le treize lañ ko njëkk ràññee wante de série maîtresse d'un homme marié bi mu mel dañ ko daal di fëllaatal moom Mère Diagne waaye a du foofu kese ndax bi ngi ci lor de Ninkinanka di fa jouer rôle bu am solo rawatina nag français bi nga xamante ni sax daf ko fay làkk ba mu sax di du wante nag rôle am gi nga xam ne dañ ko fa jox ci lor de muy yëddu ak espionné daal euh, moo ca rey nit ñi wante nag ca série euh, maîtresse d'un homme marié muy daal di incarné goro boo xamante ni nag du may daara ay jabari euh, doomam moom Mère Diagne itam bokk na ci ñi nga xam ne marqué nañ esprit sénégalais yi ci atum 2020 bi ci wàllum série théâtrale yi si a Sénégal deuxième position ba Roubassy Roubassy mi nga xamante ni moom itam kenn dootu ko présenté ci écran bi ndax ay rôle yoo xamante jot na ko incarné ci ay différentes wante nag ci série bi di mbetteel nag moom Rouba see def ci gën nag daal di ràññeeku ndax na mu toogee nag moom itam ci sëykat nekk jigéenu sëykat boo xamante ni nag ku ko seetaan sax booy roy ci moom doo juum doo jàdd yoon nekk koo xamante itam ràññee nañ ko lool ci série bi ndax na mu toogee waaye itam la muy incarné saa buy joué moom mi nekk deuxième position ci sunu top ten bile ka nga xamante ni moo gën a ràññeeku ci atum bi ci ci wàllum série télévisée yi ci réewum Sénégal top ten ba mu nekk ca kaw ca bopp ba nekk numéro un di mère Mariam Dial Mariam Dial mi nga xamante ne nag moom itam kenn dootu ko présenté jamono ji naam sax nekk na koo xamante ni nag ah, tàmmuñu koo gis wala nit ñi xamuñu ko woon ci seen théâtrale bi loole naka dakk na nag niki ba maîtresse d'un homme marié a di nag ñëwee muy concept bu bees série bu bees Calista si daal di bind moom Mariam Dial nekkoon fa actrice principale ba joué fa lool bu am solo rawatina nag mu nekk rôle bu audacieux ndax lu ci bëri ŋàññ nañ ko lu ci mel ni waa ONG Jamra saay su ne ñu ciy génn di def ay sorti di xam ne ni ah, moom dafa ñàkk teggi ndax lu nit ci daawul xalaat di ko wax ci télé ah, ba di ko def dem sax ba ci yenn rôle yoo xamante ni ak itam yenn séquence yoo xam ne dañ koy gis mu dem ba toog ci chaise anglaise di nekk loo xam ne bokkul ak sunu culture te itam mosuñu ko gis ci wàllum théâtre moom moo ko fi njëkk a def Hakim Diall osé ba dee daal di koy def moo tax ba mu ci jógee ay saaga ki xas sàppi na ko ci yooyee jamono wante nag bu nu fàtte ni itam moom mi bokk na ci ñi gën a marqué nag atum 2020 bi ci wàllum théâtre